jéggulu sa borom jéggulu sa morom moom ma sa tooñ te mu leer na leen ne tooñ nga ko ca tooñ boobu nga ko tooñoon neexul ndegam mënuñoo jàkkaarloo wëlbatiku demaat ca moom jàkkaarloo moom di ko wax lañ ko def ngir mu jégal sama borom borom yërmande te ku mu jégal ak njégalam rek moo ma da sax ndax ku mu jégal dara topp yàlla ñu sama borom boole jégal ñu lii nag nii nga ni bii nii ngeen nekkee ni la bëgg ñu nekkee ko ba baw ba àjjana ba keroog ñuy jàkkaarloo waa def say lu léegi dama bëgg man bëggatuma gis benn supériorité ci suñu diggante ci kenn ak kenn ndax nul ne supérieur ak personne ñun ñëpp ay doomu aadama rek am na wax boo xamante ni bi wala daf koy faraw di wax ñëpp a yem déedéet ñëpp yem ñu sama borom moo bind rek lii rek misaal la ci firndeel bi ndax tey jii Cheikh Ibrahima Faty mii ñun ñëpp kenn ku ci nekk xam nañ ni xam nañ sa bopp ni la sama borom def ci moom def ko ci kenn ku xam na suñu borom def ci Serigne Touba boo làmbee sa bopp ci kaw ci suuf ci biir ci biti dana leer ni suñu borom def ci Serigne Touba def ko ci kon sama borom moo séddale moo wóotal loolu nañ ko nangu waaye nag bu ko weesoo ci suñu dund gii ñuy dund nii lañ war a dundee. ndax ay taalibe kenn ku ci nekk ci ñun la ngay sàkk noonu la ko sa morom di sàkk nii nag kenn ku nekk ak sa fas waaye ñu ñëpp li ñu sàkk benn la am na ñoo xamante ne bii danañ ko def ba faatu ñu soog leen jox lañ leen di jox am ñoo xamante ne bii dañ cey nekk bala ñoo faatu ñu jox leen li leen di jox ñu yóbbaale am ñoo xamante ne bii dañ koy tàmbali rek.

dafa diis gan woyofu ndax koo xamante ni boo nekkee moom lu dina riire fu ne jëm si ci yow lu ne danga ne la mbir dina la ni ñëwee kooku faw nga am jom ak passé ak dëgër bu mat sëpp ngir mën moom du jàngee loolu nag ku ko bëgg a def rek kon faw ngeen gën a doole bu baax a baax dama bëgg màggal gii muy màggal moom du màggalu Tuuba di gàmm bis yi nga xamante ne dañ koy daje fii ci ëttu Seydina Ousmane bi lu ñuy def ñu ànd ko defal lu ñuy def ñu ànd damaa bëgg bu ci kanamee bu ñuy xew añ ñun ñëpp ñu ñëw fi xew dama bëgg ñu dundaat beneen civilisation amatul nekk fii wax naa leen ko ba taaj amatul nekk fii du soli sagar du dog dog loo ko teñax teñax nekk yooyu kenn ku nekk ak sa yu sew nag man bàyyi naa ku nekk ak yu sew ndax maa ëpp ñëpp yu sew ba mu ba ba ba laaj bi loo ngay loolu moom man sant ma ko kenn kenn ku nekk daal na nga jënd sa bopp sa morom la nekk ca moom nga bàyyi ko ca noonu hmm? lenn rek laay demande ñëpp man bëgguma gis kuy tilim ku tilim ndox am na saabu am na nañ sangu ba set am na yéwe que ça soit na doon jean na doon t-shirt lii dafa tàng dafa meex bu ma duggoon ci biir sol t-shirt kii bu léegi nga daal di dégg ñu waaye dem ci dégg mu naan ñii borom daal lu t-shirt ak jean ne ne tàngoor bi dong mën na ko waral ni nit ñi comme dañu gisee noonu mooy tax lii dafa metti fi ne nii maa ngi xoolal ni ma mel soxlawul nit ki mën nga mel nii correct du tere ñu respecté mais soli sagar mu xotee ko fu ne ngay lëngër lëngër yi ba boole ci pilim loolu kenn mënu laa jege foo dem ñu dàq moo tax ma bëgg ñu gën a cette civilisation fii gën kenn gënu fee rëy bët kenn ah, jëru kenn dina ragal kenn ndax koo ragal rek ñemewu la koo ragal rek loo moom gën a ragal ci

bu ngeen xoolee daaw màggal Daaru Muxti ak màggalu ren bii ngeen war a gën a dalal seen xel bu baax te gën a dolli jom nit da am jom nit da ngay am ful ñàkk jom nag weesuwul sama borom teg la buy metti kese nga jooy ko yuuxu ko adduna bépp xamal la ko bu ko tegee doo rus diggante bi mu la koy teg ba bi muy sedde wax dëgg yàlla muñ kay moo la war ak sant ko waaye nag bu dee lu la dal rek adduna bépp jot loolu ñàkk jom kese du dara loolu nag lam tënk dafa bari kon na ngeen gën a doole góorgóorlu bu baax ñi bëgg a dem siyaare ji dem siyaare ji gis nga ko yi suuf si ñu nekk ni borom daar moom fukki ak ak juróom-benn la fi def ko daaru moom si gée daar moom day dëkk bu mag ba kilifa yi nekk fa mais fii li ci seen Ibrahima Fati def dëkk ko fenn suuf si suufu si rawutaay ndax bi ci borom daar mu si di ñëw daar mu si bii dafa amoon feebar kon fii xam ngeen ne kon suuf sa rawukaay ndax fii daawu suuf sa rew yoon wi Serigne Ousmane bi mu ko xaale boo jógee woon ca kër ga ba agsi fii 4 kilomètres lay doon ñu koy xayma ba boo jógee fii ba àgg ci kër gi ngay am ak foo mën a jaar ndegam 4 kilomètres fee am feebar fii amul feebar Cheikh Ibrahima Fatick ñëw nekk fii dëkk fii fukki at ak juróom bu fi bu fiy jógee dem Darou Moussi. day war fas mbaa mu si dem xool ñuy liggéey dellu si waat ba mu fi jógee diir bi mu nekkaat fii Darou Moussi dafa continuer dem kosu kosu ma nga ca penku dëkk ba ma nga ca ca kaw ca kaw boo demee ba Darou Rahman seen jàmmoon ngay jàll foofu ngay jaar pour dem ko mais Chikori fii lañ daan sëbe njabootu Serigne Touba gi nekkoon fii ci njaare Serigne bi nekk liñ daan dundale fii lañ daan liggéey kon yéen ñii ñun ñii

fi mu nekk ci moom bu ñuy wax xel kenn mënu ko téye ndax li ko coiffé dafa bari seytaane fi mu nii ñu koy tuddee iblis suñ borom bàyyi ko kàttan goo xamante ne bi doomu aadama du malayka jinne la mu suñu borom bind waaye la muy doon doon loolee dafa nekkaat ci biir doomu aadama yi ni mu nekkaat ci biir doomu aadama yi mooy kii xalaat xalaat bu ñaaw te fas yéene taxaw tem jëfe ko jëme ko ci moroom wax naa leen ba tey nee naa leen personne boo xamante ne bi nit koo xamante ne bi dafa yéenam dafa rafetu kooku moo mat a montanu ndax saa bu jógee jëm ci yéenam rek suñu borom dafay mel ni da cay ànd ak moom saytaane da koy jay day am possibilité kooku moo mat a montanu kon nangeen ngeen moytandiku bu baax fi ngeen di waxe moytandiku bu baax ñi ngeen di waxal Sénégal gii ñu nekk nag jamono ji li fi xew ñun ñëpp ñooy tegandoo suñu bët juróomati leen ci wax jooju di ma di ci sori gis ngeen Sénégal léegi fi mu toll dafa mel ni nit ñi dañu suñu borom dafa wala seytaane dafa jël genn kiñaan bu doy waar rek samp ko ci biir xel nit ñi ak xoli nit ñi léegi koo gis ci ci ci sëriñu tariyaax lay dox ci njabar xërëb yu bon yu ñàkk fayda yooyu rek pour lan loo xam ne yoo boo demee def ko ba noppi ca fa nga ko defee suñu borom mën na faa jël sa bakkan nga dem ba àgg sa sa bakkan nga dem ba tok ba yaakaar ne la nga doon wut am nga ko suñu borom jël sa bakkan am na loo xam ne ku ko mën a def war ko rus war ko jomb tere àdduna jaru ko bu ngeen gisee cant yi ma di leen ko tere mbokki talibé yu bari tey ñi ngi yenn tawat yu sew ci seen biir fañ ko jëlee pourtant dañoo dañoo dañ fay dem ngir dëggali seen xol wala ngir dem sakku ji fa euh, yërmande sëriñ bi nangam nangam nangam Je les quartiers, yi les regroupements, regroupement les rassemblements rassemblement yenn ni, ndax de ma bu de Je ci Serigne Touba man Je suis man ñu ne dañ Je hmm? suis faites très attention qu'on soit très prudent ñu bañ a bàyyeeku rek wax naa leen ba tey ne naa leen dem leen seeti seen i maam lay seen cosaan suñu borom def ko ci ñoom bu ngeen dee diw diw leen bu ngeen dee takk takk leen bu ngeen dee góox góox leen bu ngeen dee galax leen galax leen lu ngeen mën a def loo boo ko defee ñu defal la ko boo ko deful ñu defal la ko def ko bala la ko kenn ko defal ku ne defal la ca jamono jeexoon laaj léegi ndega foofu la réew mi toll ñun du ñu def kenn lenn waaye nag kenn ku nekk am nga droit sàmm sa ko man nag ma di leen gis ngeen di nekk ci jàmm mooy sama jàmm man yeneen yi nga xamante ni bi nag yéen da ngeen yéeg na muy demee fa yéen saa bu ngeen ko yéegee def leen ko mu di ak can ndax allah ku li xali mënta ñàkk Serigne Touba mu baax mii ñu yaakaar tooñu waxu kenn dara defu kenn dara mës ta def lu ñaaw mosul wax kenn lu ñaaw te fii lañ ko fekk mu toog ak njabootam ñu jël ko yóbbu ko diiroog at yi ñu ko yóbbu yëpp boole ko di ko torturé lu métti lu ne ñu def ko ba nga xamante ne bi jógee na fa ak njabootam mënatu leen a gis mënatu leen a dégg xamatul ci ñoom dara maam Thierno Birahim ñuy wax tey fii nekk na fay ak ay mbokkam sama maam Marema Sëy mi nga xamante ne bi tey moo waral loolu yëpp fekk nañ ko fii ci Daaru Muxti mu nekk ci teen bi wëgg ñu bëma ko mu tàbbi ci biir teen wër na borom Daaru Muxti maam loolu bu la koy nettali sax da ngay

mu ne ko waaye boo génnee deel soox ba ñu yaakaar ne dara ndax làmmiñ baaxul ndax dégg ma loolu la yàlla jox xarit ba si maqaama te te nu mënu ko jëf na dolan kay xayma te bala laa ba jox la mbir yaa nga muñ na tom waa aw sa tànk mbër yaa jërëjëf borom Tuuba kon nag ñoom doole doole doole góorgóorlu ñu bëgg a dem ziare fu waay bëgg a dem ziare demal ziare bu ngeen ci jógee naaj yu tàng nag Darou am na ñoo xam ne moom ay góor yàlla lañ dañuy dox rek di dem waaye coono boobu mën naa ñàkk mooy sañoon daal na ngeen di seet ay kër yu sedd guy ngeen toog ko boole ceeb nag fexe am yu sedd guy yi di sant rek tam bañ a doon yooyee te doon yii. day gën a métti bu dee yii nag au moins suukar si sax dina retenir tuuti que des heures bi nga xaw a dégagé mais voilà kon rendez-vous ñun ñëpp daal ñu ñëw xéwal yi pare fu waay toll yëkkati garas àdduwa musunoo suufe إن كل فيكون قاساتوا وصلوا سوفي نخيو ويبكي قاساتوا كي ترى العدد النموس دراكا لي تقول قاساتوا وصلوا سوفي نخيو ويبكي قاساتوا وي عليك وي دار يا فرح jàmm di ko jàmm di ko jàmm ba gi jeex mën na maa bañ a way mais nag dégg naa xanaa xamu leen ne man Seydina Ousmane fii borom daal moom fii moom la daan jox barsan bi dàmm moo ko daan jiite moo ko daan def pendant des années lu yàgg yàgg moo dàqoon seen muuru baat moo dàqoon ñu nga tuddee bi ñëpp ñuy wax ñoo leen dàqoon baat bàyyi seen xat bi ba ñu ko bi ñu ko mujjee gis ñu di ko wax ah, bu masaan bi jàll foo ko déggee da ngay bëgg bil Mustafa sini kay taalifa ka bind ak woyeeg lu ne rek mi ngi nii moom it xalifa boobu dafa muy sigar bu yombal bu soobee yàlla yooyu ñëpp bas bi moom <laughs> ndax waaw moom turam doomu daana <laughs> Ah, yow yaa koy waaw yow moom yow jël nga lool waaw kon dem leen ngeen dal seen leen fu mu gën a set fu mu gën a nooyee fu mu gën a neexee gis leen talu paquet bu leen kenn perturbé gis nga ku ñëw sax bëgg leen a provoqué waaw lii waaw laa te beneen affaire benn affaire benn affaire dama leen koy ñaan ngir jëmmi Seydou Ousmane parce que sama ci vraiment ba nga xamante ni bi fi ma toll. li ma leen di ñaan fi ma toll bu ngeen ma ci jëmbalee ngeen jëmmi Serigne Touba rek ma jël man dama bëggul dama bëggul bu leen tontooti koo xamante ne bi da ngeen ko dégg muy wax yëkkati kàddu jëme ci man jël ko parce que fi léegi yéen a ngi bañ loola lam war a demee dëgg dëgg dëgg dëgg day am lu ca des bàyyi leen nit ñi ñu wax lu leen nekk gis ngeen fii ñu nekk nii tey sukkoor yi bii maa mais Cheikh Modou Nouré ni mi nga xamante ni moom la Seydina Ousmane def tey mu jiite fii ci kër gi gii lii fi Seydina Ousmane def bi ma koy def amu ci lu dul ma dem ci moom ni ko dama doon ñaan ndigal ndax mën naa ko faa def musuma jàkkaarloo moom ni ko soxla naa ci suuf franc cinq franc musuma jàkkaarloo moom ni ko soxla naa ci fekk suuf musuma jàkkaarloo moom ni ko dama caa sonn wala dama caa tàyyi wala dama caa nanga ba ma woowaatee di ma laaj liggéey bi fu mu toll dama ne ko liggéey ba day dara téyewu ko lu dul bu fekkente ni man ngaa fexe ba dox sama digganteeg ñi nga xamante ni bii seen yéene day leneen lu dul liggéey ba ak liggéey bi moom foo bëgg ma yóbbu ko mën naa ko fa yóbbu. des na ci moom xam nga moom suuf parce que am lu toll nii ak dayo bi mu am. ba pare muy ay ay yu bari ñu mën fee war mën a def lu ne mbokki talibe yi nangu ko gëm ko bëgg ko di ko xaar ñu naan fi daje di jëm feneen man kooku ñàkk fekk dal ñëw moo fenn maa lan maa ngi fii bu fi sama bakkan fi des na fi des fii mbokk talibe yi bari yoo fi amaloon ñu fiy liggéey ñu baree bari tey ña nga am na ci ñu bari ñoo xam ne ña nga bar sax dañu leen a gëm gëm gu tax sama borom bàyyi ñu fi ñoom yóbbu leen yàgg yàgg dañu leen di fekk ñoom nag sama borom dimbali leen ma ci ñoom ba bi ñu dem yóbbaale nañ ngërëm kon ñu ne ñu fi des yàlla ñu sama borom dimbali ci ngërëm loolee bu ñu fi jógee ngërëm loolee topp parce que maam Thierno bi mosul leen a dégg ni maam Thierno moo woo kenn di sas kenn ngir sukkoon wala ngir feneen wala ngir feneen hmm? bañu ma ko de mais damaa nangoo ci lamiñu sëriñ bi noo Ousmane mu ne moom ci moom amul sase amul laaje ndax soxluwut lu moom la la nga xamante ni bi sama borom baaxe na ko saa bu at ba jotee danañ ko jot ni ñu ko war a jotee te danañ ko def fi ñu ko war a def man yàkkamtiwuma dara du leen waaye li ma bëgg te bëgg ko te bëgg ko mooy ngeen mucc yéen mucc leen yéen bu ngeen muccee parce que Cheikh Ousmane Mbacké noonu la waaw man dara jaaxal dara jaaxal te nag dama taxaw ni léegi di ko wax rek dama taxaw fii ma taxaw nii di ko wax bëgg naa ko te jiñ naa ci Seydina Ousmane Noré ni dina ko def parce que maam Thierno Birahim dina ko def góorgóorlu leen bu leen ko toog kenn bu ngeen taxawee bu leen ñu taxee taxaw ngir la muy wax ba ngeen dégg la muy wax bu mu leen jaral gestu bi yëkkati seen làmmiñ di ko doon dimbale leen ma rek seen tànk bu jiitu na bi ci des jóg fekki ko rek tegu ca kanamam ngeen avancé dem seen yoon bu ngeen ko soree rek dootu leen dégg la may wax ki taxaw ci barab di wax boo ko fa bàyyee muy wax ngay dox lu baaxam kawe kawe kawe kawe danga toll foo xamante ni bi doonoo ko dégg exactement man noonu la bëgg ñu di ko dund bu kenn xuloo ngir man bu kenn xeex ngir man bu kenn mere kenn ngir man bu kenn jépp kenn ngir man lu waay di wax ci man nag na nga ko xool bu baax gànneeg àdduna métti na te waaye gànneeg àllaxira koy ba sax ko raw de ak bis pay yàlla na ci musa ku gëmul yàlla rek moo jàpp ne buñ jógee fii rek buñ jógee ci suñu fii rek environnement bi rek fa la yem dëgg la bu ñaan